asali sena se satbu neena saalu abi faadali alxalxami mubtadian bismillahi alazami hamdan liman ala alhuda hadani suma ila tarixati jaylaani min seexina jarsu madila faadili xutbul awaaxiri maal awaahili sërif seex naa ma ne mu ngi door ci turu yàlla bu màgg bi wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin di julli ci sangub sang yi muy seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi tayibin altahirin ak ki ñooñam ak i saabaam ak ñi nga xam ne yàlla laabal na leen waman tabiahum bi ihsaan yawm ddin ak képp ku topp ñooñu fii ba yowmu diin mu yowmal qiyaamati ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu mboolem jullit yi mboolem jullit yi ñoo ngi mu ngi nuyu mboolem jullit yi àddina bi yëpp. ak àdduna bi yëpp. di leen xamal ni. di leen xamal ne. Ah, ginnaaw bu ñu masawoo coona. ginnaaw bu ñu masawoo coona. Ah, li xew fii ci réew mi. li xew fii ci réew mi. mooy li nga xam ne naqari nañ torop mooy li nga xam ne naqari nañu torop ndax Sénégal moom mooy réew teraanga di réew jàmm ndax Sénégal kat mooy réewum teraanga te mooy réewum jàmm di jaale ñi ci ñàkk seen bakkan di jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ko jaale seen waajur yi di masawu coono ñi ci jot a gaañu di masawu coono ñi nga xam ne ñoo ci jot a gaañu di masawu coono ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal di nga masawu ñi nga xam ne itam ñàkk nañu seen i alal euh, di ñaan yàlla yàlla yàlla dellowaat jàmm ci biir Sénégal di ñaan yàlla nag yàlla dellowaat jàmm fii ci biir Sénégal. parce que jàmm mooy lépp. ndaxte jàmm kat mooy lépp. te yàlla dàqal ñu musiba ak fitna ak bala te lépp luy musiba nag yàlla dàqal ñu ko ak fitna ak bala parce que alayhi salaatu wasalaam fa daan wax ni. ndax kat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne. al fitnatu naimatun laana allahu man iqadaha mu ne kat fitna moo ngi nelaw yàlla rëbb na képp kuy yee fitna rek yàlla rëbb na la. te yàlla dafa nii te yàlla kat dafa wax ne taqoo fitna te laa tusibanna lladiina zalamu minkum xaassa mooy tan fitna bi nga xam ni na ngeen fitna bi nga xam ne bu ngeen ko taalee kat du yem ci yéen ñi nga xam ne yéen kese yéen a ko taal du yem ci bopp ñi ko sooke rek du yem ci bopp ñi ko sooke kese fan yi fan yi eh, lu bëri xew na fi lu bëri xew na fi waaye waaye nag lu yàlla dogaloon la lu yàlla dogaloon la mu waroon a am loolu waroon a am am na am na waaye dañuy ñaan waaye dañuy ñaan population bi population bi jeunesse bi jeunesse bi. ñu delloowaat suñu xel ci yàlla. ñu delloowaat suñuy xel ci yàlla. parce que ñun jeunesse jeunesse bi. ndaxte ñun kat jeunesse bi. ñun ñooy euh, euh, ñun ñooy gàncaxu Sénégal bi war a meññ suba. ñun ñoo nekk gàncaxu Sénégal bi nga xam ne ñoo war a meññ suba. ñoo war a remplacer suñu waajur yi. ñoo war a remplacer suñu waajur yi. war a remplacer suñu maam yi. war a remplacer suñu maam yi. waaye yaakaar naa ni garab. waaye yaakaar naa ne garab. boo amee sànkar. boo amee sànkar. du mun a meññ. du mën a meññ de. loolu mooy kan. loolu mooy kan. nga xam ni. mooy ki nga xam ni. fàtte ne moom mooy kan. fàtte na moom mooy kan. fàtte ne moom li mu doon. fàtte na moom li mu doon. fàtte ne li ko war. fàtte ne li ko war. digganteem ak boromam. ci digganteem ak boromam. digganteem ak société am. ci digganteem ak société am. digganteem ak mbokkam. ak digganteem ak mbokkam. digganteem ak dëkkaaleem. digganteem ak dëkkaaleem. Euh, dëgg la. dëgg la nit mun na am lu ko naqari. nit ki kat mën naa am lu ko naqari. mais am na nu mu ko mën a waxee. waaye nag am na lu mu war a mën a waxee li ko naqari. waaye du dal ci alal jàmbur. alalu jàmbur. du tooñ ko mu seqalul dara. du tooñ ko mu seqalul dara. du wax nit bu mu warul wax dara. du wax wax bu ñaaw jëme ci koo xam ne sequñu ko. parce que àddina. ndaxte àdduna. ñun boo gisee ñu ni société. boo gisee ñu wax société. ay nit yu bëri la yu ànd. ay nit yu bëri la yu ànd. di liggéeyandoo. di liggéeyandoo. di yëkkateendoo. di yëkkateendoo. di wàccandoo. di wàccandoo. loolu moom mooy société. loolu mooy société. kon yàlla na yàlla defal jàmm. kon yàlla na yàlla defal jàmm. di ñaax samay doom. di ñaax samay doom. samay jarbaat. samay jarbaat. samay euh, ay rak. sama ay rak. loolu boo ko waxee mooy société bi façon boobu yëpp mu ngi. loolu boo ko waxee kat dafay firi ne kat société bi ñi ma tudd ñëpp ñoo ci biir. lu xew ñu ni xale yi la. lu xew ñu wax ne xale yi la. amaana sax mën a bañ a nekk xale yi. mën naa bañ a nekk sax xale yi nag. waaye bu fekkee lu jóg rek. waaye bu fekkee lu jóg rek. ñu ni diw la. ñu ne diw la diw boobu war na seetaat nu muy doxee. diw boobu kat bu yàggee war naa seetaat na lay doxee moom. xam ni ñu xam ne. gaal gi ma ni ma ko yàgg a ni ma yàgg waxee ne gaal gii. gaal suñu gaal ñëpp la. gaal gi la ñun ñëpp. ku ko bënn ku ko bënn da nga lab labaale labaale ñun da nga lab labkat te boo labee du yam ci yow kese da nga ñeneen. am na li nga xam ni. am na li nga xam ne. dañ ko baaxoo. dañ ko baaxoo. at bu nekk di ko def. at bu nekk di ko def. di dem ci suna sang. di dem ci suñu sang. suñu wasila. suñu wasila. suñu yaakaar. suñu yaakaar. àddina ak alaxira. àddina ak alaxira. na Cheikh Abdoul Aziz. muy na Cheikh Abdoul Aziz. di ko ziare. di ko ziare. mois de juin bu nekk. mois de juin bu nekk. ren 15 16. leer leer mu tombé ak la 14 quinze 16. waaye waa jamaatu nasri. waaye waa jamaatu nasri. waxtaan nañu ak man. waxtaan nañ ak man. maa ak ñoom ñu ànd. maa ak ñoom ñu ànd. dàq ko ba jëmmi jamono. dàq ko ba jëmmi jamono. parce que mënuñu nekk ci ay xat-xat. ndaxte mënuñoo nekk ci ay xat-xat. wala ay yëngu-yëngu. wala ay yëngu ci réew mi. ci réew mi. ñun ñuy ni dañuy bàyyi fii réew mi. ñu ne dañuy bàyyi réew mi fii. di dem. di def ay karawaan di dem. ci beneen réew. ci beneen réew. dañuy toog dañuy toog. bu neexee ñun ñëpp ñu ànd bokk. bu neexee ñu ànd ñun ñëpp bokk neex-neex bi. bu naqaree ñëpp ñu ànd. bu naqaree itam ñu toog ànd ak ñun naqar bi ñëpp. fas yéene. fas yéene. man ak mag yi ma àndal. man ak mag yi ma àndal. toog fii suñuy biir néeg. toog fii suñuy biir néeg. jël suñuy kurus. jël suñuy kurus. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. pour réew mi. pour réew mi. ak pour jeunesse bi. ak pour jeunesse bi. ak pour population bi. ak pour population bi. ak pour gouvernement bi. ak pour gouvernement bi. yàlla indiwaat jàmm. yàlla dellu indiwaat jàmm. loolu moo nekkoon kàddu yi. loolu moo nekkoon kàddu yi ma ne woon naa woo tey ma ne naa tey waxtaan ci ñu waxtaan ci parce que journaliste yu bëri ndax journaliste yu bëri préparé woon nañ pour ànd ak ñun préparé woon nañ pour ànd ak ñun dem Nimzaat daayira yi daayira yi joxoon nañu seen avance kaar yi ñu ci bëri joxoon nañ seen avance ci kaar yi jigéen ñi amoon nañ jot a commencé ndugg jigéen ñi jot nañ la ñoo commencé di ndugg pour ñu dem pour ñu dem waaye nag waaye nag ñun ñëpp ñun ñëpp yàlla subhaanahu wa taala moo ñu moom yàlla mu màgg mu kawe moom kat moo ñu moom te bu yàlla soobee mbir kenn mënu ci dara te bu xa yàlla xasee soob mbir nag kenn mënu ci dara lu ànd ceeg moom kon ren daal kon daal ren dañ koy dàq dañ koy dàq ba yàlla indiwaat jàmm ci réew mi ba yàlla indiwaat jàmm ci réew mi indiwaatee jàmm ci réew mi bu indiwaatee jàmm ci réew mi ñu demaat def suñu ziar ñu demaat def suñu ziar amaana amaan na mën nañu wax ne dañu ragal mën nañoo wax kan ne dañoo ragal ragaluñu dara ragaluñ dara yàlla rek la ñu ragal yàlla rek la ñu ragal bu na nammee jël suñu bakkan yi ndax kat yàlla bu namee jël suñu bakkan yi fi ñu tëdd di nelaw la koy jëlee fi ñu tëdd di nelaw fa la koy jëlee wala fi ñu toogee di waxtaan wala fa ñu toog di waxtaan fa la koy jëlee waaye dañuy ragal fitna waaye dañoo ragal fitna xam kii def lu bon ndax kii def lu bon mun nga génn mu sànni la xeer mën ngaa génn mu sànni la xeer mbooloo bëri la àndal mbooloo bu bëri laay àndal mu daal di indi leneen mu indi leneen loolu moo tax loolu moo tax ñu ni ñu ne jàmm rek lañ soxla. jàmm rek lañ soxla fii la ñuy toog. fii la ñuy toog di ñaan di ñaan ba yàlla dellusiwaat jàmm ci. ba yàlla dellusiwaat jàmm ci réew mi. di gërëm di gërëm. population Sénégal. population Sénégal. di gërëm jeunesse Sénégal. di gërëm jeunesse Sénégal. di gërëm euh, gouvernement. di gouvernement Sénégal. di gërëm nag. di gërëm nag ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy sama lépp ñooy sama lépp ñooy jamaatu nasir tariqatul qadiriya fii ñoom ñooy jamaatu nasir tariqatul qadiriya président Papa Dione ngi nii toog président Papa Dione ngi nii toog président national ngi ni toog président national mouvement de ngi nii toog président euh, régionaux ñu ngi nii toog ñi 2006 euh, ba léegi. 2006 ba tey. ñi ngi ànd ak man. ñoo ngi ànd ak man. masu masu masuma jug te juguñu. masumaa ma te joguñu. ci naaj. ci naaj ci taw ci taw ci tàngoor ci tàngoor ci sedd ci sedd ci bànneex ci bànneex ci naqar ci naqar kon bu ma leen gërëmul du ma gor kon su fekkee gërëmu ma ñii kat man nekkuma gor amaana sax loolu moo leen war ñoom ndax man naam kat loolu ñuy def ñoom mo leen war de parce que taalibeeg sëriñ lool la ndax taalibeeg sëriñ lool la waaye waaye nag aka moo bëri taalibe yi deful loolu aka moo bëri taalibe yoo xam ne defuñu li ñuy war a def kon ñoom buñ ko defee leen a gërëm kon ñoom kat suñ defee li ñu war a def dañ a gërëm di gërëm di sant leen eh, gërëm di leen sant di leen ñaa masawu coono ñoom itam di leen masawu coono ñoom itam ci naqar bi ñu am ci naqar bi ñu am eh, eh, at daal di dellu si at daal si ñu war a dem ziyaare ji seen sëriñ ñu war a dem ziyaare ji seen sëriñ ñu war ko bàyyi ñu war a war ko bàyyi waaye li tax ñu bàyyi ko waaye li tax ñu bàyyi ko yàlla moo ñu ko digal yàlla moo ñu ko digal mbir bu amee ni mu demee mbir bu amee ni mu demee da ngay ànd ak dal ak tey ak dal ba beneen jamono ba beneen jamono parce que yàlla ndax yàlla moo ni laa yukallifu allahu nafsan illa wasaha yàlla yàlla kat moo wax ne teguma benn bakkan lu attanul kon lu fekkee ñu li ñu attan kon kon fekkee li ñu mooy jàmm mooy jàmm ci jàmm boobu la ñuy jàmm boobu la ñuy dox di gërëmaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñëpp di santaat ñëpp di ñaanal président Macky Sall di ñaanal président Macky Sall yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla jàppale yàlla aar ko yàlla aar ko yàlla ko yàlla sàmm ko euh, ndax ndax bu amee jàmm ñu am jàmm bu amee jàmm kat ñu am jàmm bu ñu duggee ci kaar bu ñu duggee ci kaar wala ci oto wala ci oto wala ci sareet wala ci sareet kii koy dawal bu amee problème nga am problème kii dawal sareet bi wala oto bi bu bés bu amee problème yow da nga daal di am problème di nuyu xalifa généraux yëpp di nuyu xalifa généraux yëpp di leen yëgalaale di leen yëgalaale yëgal naa leen dinaa dem ne yëgalal na leen ne dinaa dem waaye lii moo tax ñu daal di fomm waaye kat lii ma wax nii moo tax ñu fomm yoon dem bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu